asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen bokki jullit yi di bokki taalibe yi ñoo ngi fii ci kër Cheikh Maru Bëggey fii nu toog nag di waxtaan ak yéen mooy jàkka ji nga xam ne fii la sëñ Touba jullee woon ñaari rakka le 2 juin 1903 booba ak léegi nag mu nekk 116e édition di téeméeri at ak fukk ak juróom-benn ci ren ne nag fii julli naa fi te def naa fi lu fi dootul jóg na ngeen ma ko màndargaal te lu fi ñëwee yàlla lu fi waay ñaan yàlla dana ko may ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala ci barke yonent yàlla Muhammad loolu nag 1903 la woon ci ban fànn la amee woon moo di ku ne xam na ne sëñ Touba 1895 la fi jóge ñu yóbbu ko. Gabon mu nekk faak tubaab yi ak ñi ko bëggoon a gàntal ba mu 1902 bu ñibbisi bi mu ñibbisee ndege tubaab yi pe seeni pexe joyut pareeguñu bàyyeeguñu ko ñu nag léegi nañ ko yóbbu ci foo xam ne du kenn ko fa mën a fekk te du fa fekk ku ko yërëm du fa fekk dara muy gànnaar Cheikh Sidé Baba mi nga xam ne daa am lu mu bëggoon ci boppam ne moom mën na koo yor ndax booba gis na loo xam ne tubaab yi ñoom gisuñu ko jur boobu nag ba mu jógee njaareem ñëw Bambey commandant de cercle bu Jurbel jox ko bu Bambey mu jógee fa commandant de cercle bu Bambey jox ko bu tubaatul boobu mu newee Toubatoul nag ba minuit passé la fa départ nag wut si Tiwaawoon ndax booba saxaar gaa ngi koy xaar pour mu war a ànd ak ñoom dem Ndar bi mu dikkee nag ku ne xam ne ne Serigne Touba fu ko waxtu jote du jéggi ñaari jéego tey wàccoowul ak digalu suñ borom bi bi fajar jot nag mu yem fii mu julli fi fajar geesu nag ne maru ba day sorut fii ñu ne ko néegam baa ngi nii mu ne nañ ma ko wol ñu daal di woo Cheikh Marouba ne ko sëñ bee la soxla mu ngi fii sa ëtt bi toog mu ñëw mu nuyoonteeg moom sargalanteeg moom ne ko maru mu ne ko Mbakke mu ne ko man de damaa ne ci yoon fii nag julli naa fi ñaari rakk yoo xam ne ñaari rakkay fajar la di ñaari rakkay farata léegi nag barab bii damaa bëgg ñu màndargal ko te fonk ko def naa fi lu fi dootul jóg moo waral tey ñu tabax ko def ko jàkka nii ëtt bii di ëtt boo xam ne ëttub Serigne Touba la ndax ëttub Cheikh Amadou Bëggee la màggal googee nag moo dikkaat li tax defuñ ko ci 2 juin bii dafa nekkoon ci biir koor gi ñu am ndigalal sëñ Muntaxa depuis daaw mu ne nag leen bañ naan ndox ngeen def ko waaye bu mu génn weer wi ñu jàpp ko nag tey jii sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Amadou Ba tey sët moo mag ci sët yi moo ko woote ñu màggal ko fii nu toog nag mooy jàkka ji ci lañ doon tëjee kaamil yi nga xam ne moom lañ wàcce fépp xat xatnu bi lañ doon def nii ba noppi kii ma toogal nag day kenn koo xam ne moom dong moo man ne maay Cheikh Marouba tey ndax kii Cheikh Marouba ko moom dong moo fi des ko doomi Cheikh Marouba ci kaw suuf yàlla na fi gën a yàgg yàlla na fi gën a yàgg te wér te ñu tuddewoon ko maam jaara moo koy wax maam Moussa Gueye dëkk ca Kaolack soxna si ginnaaw bu ñu la nuyoo di la siyaar di la ndokkee di la sargal di ñaan yàlla nga yàgg fi te wér lool ñoo ngi lay ñaan sa bisub baay bii noo ko gisee tey bi nga xamee ne boo doon góor tey yaay doon xalifa bi waaye ku ne xam na ne jigéen du doon xalifa moo tax sëtam sëtu Cheikh Marou Ba di doom ci moom moom mii muy bàjjanam muy sëñ Moustapha Guèye mooy xalifa bi ànd ak mboolem ñi topp ci bis ci ginnaawam yëpp soxna Mame Bousso ñoo ngi lay nuyu di la ndokkee di la ziar di la laaj nag bis bi lu ci sa xalaat ak noo ko gisee. waaw kay jël def nga lu baax maa ngi lay ñaanal maa ngi leen di nuyu di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg suñu sëñ bu baax bi di suñu soppe di di xalifa bu sëñ Touba di sët ci sëñ Touba di sët ci Cheikh Mourou Bagay moom sëñ Mountakha yal na fi yàgg te wér ak moom ak bépp jullit ndax day sama. waaye di sama xarit mu bëgg ma ngir sañ Touba mu bëgg ma ngir sëñ Touba Cheikh mu bëgg ma bëgg ko yit ngir sëñ Touba mu ràññi ma lool mbàkki ma tax ma di ko ñaanal di ñaanal itam yaat ma géey naa ñaan sama kër baay waaye damay ñaanal yaat ma géey ndax ko duggee di taaw rek Cheikh mu ba topp ci mi di ko topp ba nëgë ni fekkoon na ko mu yor màgg gu rëy waaye ba maamam màggalee ba fi ñu la bàyyi màggal gi jël cëru maamam ma di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ak teraanga ak sutura sax daag yàlla mu tase dara lu ko la jël mu dénk ko it sëñ Touba maamam dénk ko it sëñ Madina Diop maamam dénk ko it Cheikh Mouriba Gueye maamam bis bi nag ni ma ko gisee maa ngi sant yàlla lool di sant Cheikh Mouriba Gueye sama baay ba ndax daf maa jur tuddee ma soxna jaara ma màgg màgg ci loxol sëñ Touba waa kër sëñ Touba ba waa sëñ Touba rek laa xam man waa kër sëñ Tuubaa rek moom a ñor ñoom dong laa xam ma di ko ñaanal fii rek waa kër sëñ Basiru itam ndax soxna Xadi Mbàkke mu baax ma yal na ya xam ya sedd kett na yàlla yaramut bi yal na sedd guy yal na àjjanay këram yal na bokk ci jigéen ñi wóor ay mi di sant sama njabootu baay gii ak sama njabootu rak kii sama mag yi ndax it ñi ngi dundal seen maam rek mm-hmm. waaw ñi ngi dundal seen maam li lépp dundal seen maama yaa sunu bu ñu ngi nekk di teral waa kër sëñ Touba di bëgg waa kër sëñ Touba la seen bàyyi bëggoon sëñ Touba Guèye Mbaye Faati Guèye sëñ Massamba Guèye Bassirou géey moodu géey ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp fu ñu bëgg a yegg yal nañu fekk sama njabootu mag yi yal na leen yàlla sàmm man damaa kontaan kontaan naa saa yu ñu tegee ojob bi dama leen di ñaanal naa leen yàlla ngeen gudd fa ndax li ngeen def ba bëgg seen kër maam gi bëgg ngeen mu jekk dekki te dekki dafa jëm na ko te yéen a koy defal ndokk ba ngeen xamee fa ngeen bokk ngeen di ko gëstu ba ñu koy sant naa leen gërëm naa leen boole naa leen ak sëñ Tuuba yàlla mi am pay yàlla na leen fay yàlla rek la ñuy ñaan mu may nu yàlla na nu may sama kër baay gii fu mu toll di sëñ Tuuba te fu muy toll muy sëñ Tuuba ñi mu jur ak sët yeeg ñëpp yaag nag dina jëkke mu jëkk cant gi dina jëkk cant gi ndax daa taxawu kër baay bañ dara ndax kat saa yu ñëwee sol na moom bu moo xam ne dana jar ñaar fukki junni ngir jëmi Seex mu bëggee bëgg ko géey yàlla na fi yàgg te yàgg a taxawu kër maamam yàlla bu ko dara gaar yàlla bu mu amoon ndokk bu mu am dara mboolem ko fi dëkk ku fi dikk yal la sëñ Tuubaa yiir te yàlla sàmm la loo fi def ren bu déwénee da nga man lu ko raw ak waa kër Njàmba Njaay ak taalibe si muri bëy ak ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm yal nañ yokk ba yëkk rawatina ca Seex Njaay mi nga xam ne Seex Muru Baay maamam muy sëriñam mu teg fee maam nga jël di sëriñ gi rek waaw maa ngi leen di sant njabootu Cheikh Mourba ba géej ba ak Moustapha Gueye waa kër Sëñ Touba yi maa ngi leen di sant waa kër Mbaye Faty yi maa ngi leen di sant yan nañ gudd fan waa kër Sëñ Massamba it maa ngi leen di sant bawuma ak kenn daal njabootu Cheikh Mourba Gueye yëpp bawuma leen góor ak jigéen mag ak ndaw ak Basiru Mbuub ba sama doom jane Abidja wax dëgg yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm ndax su ma mënee dara yàlla tax moom a tax ndax moo may waajal lépp lu ko gaal yal na ko sama borom dindi ak njabootam ak bépp jullit gërëm naa leen sant naa leen boole naa leen ak sëñ Touba nag yan na leen fay te na leen fay ak Cheikh Mour Bëggee sama baay ndax kat jigéen jaan du la matt ñun de buti gukat ndax daan di góor daam di jigéen déedéet dañuy dugg rek dañ fas yéene jaan ji wàcc rek kon nag ko fi ne yal na yàlla ak sëñ Touba bindal tuyaaba yokk loo fi bëgg yal na ngeen fi yokk jàqale ji fi nit yal na ko sama borom dindi ay xéewal ak nga neen li sëñ Touba di séddale yàlla bu leen ci kenn ëppale gudd fan ak wér gi yaram ak i milliards barke bam Touba.